Touré de àndu si moom gisuma ko euh, yëguma ko biir assemblée na elle a boudé de. non non soo ko waxee. yow yaa ko yaa ko les les les les images sont ma de carrément sax boudé. muy xam ne ne moom joxul euh, ki nga xam ne mooy. xam nga ban heure lañ xam suñu. candidat ban heure la ñu xam suñu candidat. 10h30 mhm. ba 19h Mimi était dans la salle. déggoo ma est-ce que yaa ngi dégg li may wax. maa bu baax 10 h dañ xam suñu candidat ba 19h elle dans la salle. kon soo leen ma waxee ni Mimi dafa budde man loolu daf may jaaxal xam nga kañ laa doon xam ni Mimi dafa budde moom moom daf ko wax non non excuse rek xam nga kañ laa doon xam ni Mimi dafa budde mhm. mooy bu fekkoon dañ ñu wax kii mooy candidat bi rek mu génn jaar noonu jël otoom dem là dans ce cas je pouvais parler de budde mais cas boo xam ni. qu'est-ce qu'elle a fait donc. non xaw ma parce que bu dee bu dee mooy dañ la jox benn information dañ la wax benn affaire d'accord ci loolu nga jéem dem sa yoon man boog loolu laa xam ji bu dee gedd na dem na yoonam bi ñu nekkee xale de loolu lañ xamoon ak foog naa bi ñu nekkee mag tamit amul dara lu changé si moo bu dee dee mooy que ni dañ la wax fi nga sur le champ d'accord loolu nga jéem dem sa yoon mais de 10h30 à 19h yaa ngi si biir salle bi ak ñun ñëpp ñu ngi si biir salle bi toog kenn bougé wul. xanaa nga jéem a dem julli a toogaat non mais attends pourquoi ngeen wax ni Mimi Touré dafa budde. man jaaxal la mais non budewul la di budewul. parce que su fekkee ni d' accord xam nga man su nekkoon man choix la république Macky Sall. si j' étais à sa place parce président Macky Sall daf ko waxoon ne carrément moom lay. loolu yow yaa ko xam moom moo ko xam. man personnellement publiquement man honorable. weddiwuma ko. Ah ah. jàpp weddiwuma la de. dama ni loolu moom la ak président de la république. Ah mais ñun laa wax. ñun bi ñuy jël suñu engagement. di def suñu motion di wax que ni ñun on est d'accord sur toute décision qui sera prise par le président de la République ñun ñoo ko wax l'ensemble des 83 députés. y compris mon elle était d'accord parce qu'elle a signé une procuration. elle était d'accord parce qu'on lit quand on lisait la motion elle était la présente. amul benn contestation contestation par rapport à cette motion là. waaw parce que président da ko waxoon euh, voilà à l'avance que moom mooy. Euh, doon candidat bi donc donc donc Mimi dafa yaakaaroon ni kon loolu noonu yëpp moom moo tax ñu koy defar moo tax amu ci woon benn moo bu mu ciy wax mais su nekkee ni njàpp moo tax ñu koy def wala Amadou Mame Diop moo tax ñu koy def man ma maintenant mais elle a raison c'était la tête de liste je te le euh, kilomètres def na ko. en tant que femme nit ñaa ngi woon seen biir commune ak seen euh, département yi bokk euh, amoon na du mal aussi à trouver. candidat bu potentiel baal ma rek jàpp ma ñëw ma ma terminer dama ni je te le concède. Mhm. mais su loolu yëpp amee loolu yëpp su amee. Mhm. président ni ko dinaa la def nu mu tuddati. tête président de l'assemblée non pas président président Macky Sall mënu ko def président de l'assemblée. lu mu ko mën a def mooy candidat proposer ko comme candidat su ko proposé comme candidat mais attends président Macky Sall mbir mi nu mu demee nii ñëpp xam ne waaw mais attendez rek c'est lui qui a choisi. non waxuma loolu dama ne mun na ko proposé c'est président Macky Sall qui a choisi le président Mame Diop. loolu kenn werantew ko. dama mun mënu ko def présidente assemblée daf ko mun a proposer comme candidat. mais vous n'avez pas le choix. mais attendez déjà yéen dañ leen ay procuration. ñàpp ñàpp ma sali voilà. ñàpp bàyyi ma lu xoolal. maa la wax ni la magum jëm majeur et lu ñu la def loo nga def ko daf laa neex amul àdduna lenn lu fi nit mënul bàyyi lu dul lekk ak naan président Macky Sall bañ ko sonalee biir PDS dafa jël ay responsabilités jénn delloo leen lépp luñ ko joxoon muy mandat de député ba muy passeport diplomatique lépp loo xam ne dafa nekkoon excusez-moi non non non il contraint mais attends mais attends il pouvait faire comme comme comme coow lu bëri li mais kenn déggul président Macky Sall comme d'habitude président Macky Sall kenn xamu ko ci ay coow kenn xamu ko ci ay détails lépp loo xam ne moo ko soxal parce que moom c'est un c'est une personne boo xam ni fi mu juddoo cadre social bi mu juddoo xam na ni li mu war a def ak li mu loo ak sénégalais mooy comment faire pour améliorer les condition de vie des populations sénégalaises moo tax talul dara doo dégg président muy wax waxu détail doo ko dégg mu naan maa ni ma maa ni la talul loolu moo tax nag non excusez excusez moi rek excusez moi rek excusez moi rek uh-huh. excusez moi rek ma ma terminer dama man si j'étais madame Aminata Touré xam nga lu may def biir assemblée nationale je suis députée même su nekkee ni coalition moo ma fa andi d'accord ma mais ay dara exemple bu patan moo ngi noonu Yewwi Askan bi lan moo tax ñoom ñu choisir Barthélemy Ahmed dem nekk candidat mais Aminata Touré pouvait faire la même chose lan moo ko ko empêché amul kenn ku la naan doo nekk candidat lu tax ay dara ñu ni Barthélemy Diaz nga xam ne nee na Khalifa salla ko woo ni ko prépare-toi tu seras le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi que Ahmed na réglé parce que éducation politique bi mu am moom Barthélemy Ahmed amu ko xam naa foofu dafa bëgg laaxaale Ahmed ak ñoom Sonko ñëpp parce que ñoom amuñu benn éducation politique. Ah. loolu moom moo tax mu waxee leen ko noonu. maintenant problème ñëpp. non may ma rek ma ñëw. <laughs> parce que Mimi elle est en face. may ma rek ma ñëw non non loolu du problème lu ñu mën a lijjanti la. Ah dama ni la parce que ñun benn candidat bu ñu amoon problème dañuy am ñaari candidat maanaam madame Aminata Touré day ñëw taxaw ni lii président Macky Sall def jël maam am Amadou Mame Diop def ko comme candidat proposé sax la def. le président Macky Sall propose Amadou Mame Diop nii lañ ñu ko waxee ñu ñëpp tàcc madame Aminata toure était dans la salle ñeneen ak ñeneen ñu ngi woon les 83 députés ñëpp a ngi woon ci biir salle bi man de man Diop maa ngi woon ci biir saal bi ak sama akulaay taala gisuma baa dégguma gisuma sax kuy murmurer wala ci ay bruit de couloir ku ni Mimi nee na d'accord yàlla laa lay waatal ne la dégguma ko fenn bi ñu demee dañu continuer waan ñun ñëpp ñu ànd dellu ci salle si si salle euh, bu mag bi bi ñu demee ñu toog nee naa la 10h30 ba 19h kenn voté wul. apparemment Mimi Mimi euh, ci biir salle Mimi c'est une femme qui dérange au sein de la paire. pourquoi. voilà parce que sànq yaa ngi wax. pourquoi euh, déjà déjà ba ñu choisir monsieur Amadou Diop pour mu nekk ki nga xam ne moo nekk le président de l'Assemblée nationale tout le monde a applaudi au niveau de la paire. la proposition du président tous les représentants ah. issus de la coalition benn Bokk Yaakaar mais dañu applaudir xam nga lu tax ñun ñoo defoon suñu motion bi ñuy paree suñu séminaire ñu ni président loo ñu proposé yàlla xam na ni su nekkoon la présidente Mimi Touré la proposé nu ñu tàccoo Mame Diop noonu lañ koy tàccuwee kon amul différence xam nga différence bi fan la mënoon am mooy Mimi mu def comme Ahmed Aïdara Barth la waa Yewwi choisir y a pas de ma ma Amadou Mame Diop la waa la waa Benno euh, proposé amul problème dama ñëw biir assemblée nationale la mais damay déposer sama candidature. mais quand su ma dee am sama benn voix sax ñu xam ni man Mimi Touré dem naa élection président euh, présidence su assemblée nationale. maintenant li ma d'accordul man mooy que ni li ñu d'accord ñun ñëpp ci biir wala sénégalais yi di ñenn ñi bokk ñi ma ko sañ a wax dini ni Mimi Macky Sall daf ko waxoon lii mais def ko billaahi man su ma di que des détails xam nga lu tax c'est des détails c'est pas des détails non non et la parole donnée dans tout ça c'est des détails xam nga lu tax vous vous allez peut-être me dire que on est en politique la euh, le président Macky Sall si kaddu Mimi Touré ba tey euh, moo ko wax si conférence de presse bi nga xam ne à visage découvert euh, sama gémmañ gémmañam bëtam suñu bët moo xam ne ni président de la République Macky Sall en personne moo ko nekk carrément Mimi Touré yow lay def Euh, président de l'Assemblée nationale. waaw tey jii la parole donnée est-ce que on est en politique. waaw mais attends est-ce que président Macky Sall même su ko nee dinaa la dinaa la proposer comme candidate. que vaut la parole finalement du président mais excusez-moi ma ma terminer. allez-y madame mais est-ce que le président Macky Sall aussi les objectifs qu'il avait fixés. à madame Aminata Touré est-ce que madame Aminata Touré atteindre na objectif yooyu noonu. pour que mu non mais attendez ça veut dire que dafa laaj ji mais président Macky Sall li mu am comme information excusez-moi li mu am comme information pour mu a juger xam kan lay proposer a ku mu dul proposer mais man Diop aw ma ko moo tax su ma toogee ci plateau bi bëgg a juger président Macky Sall par rapport ak parole bu mu joxoon Mimi retiré waat ko mais xam na il a ses le président lu mu def xam na ko lu mu waaj def xam na ko lan moo tax tegu fa Mimi Touré mu choisir Mame Diop mais pourquoi pas Mame Diop le président Amadou Mame Diop parce que déggee on a comme l'impression le président Mame Diop mhm. a du mérite dans ce parti. il a du mérite dans la coalition vous savez que le président Mame Diop a fait trois mandats de députation depuis 2012 il est député. c'est en 2020 ou 2020 2019 euh, lañ ko jël yóbbu ko SAPCO def ko DG mu bàyyi mandat de député am euh, euh, dem ko DG SAPCO fa lañ ko jëlewaat investiraat ko mu ñëw nekkaat député depuis 2014 il est maire de sa commune. en 2009 bi président di dem euh, dans Waalo euh, le le le docteur Mame Diop moom moo ko moo ko accueillir foofu noonu kooku il a du mérite dans le parti dans la politique et en plus il est docteur en pharmacie mais attends lan lañ soxla de plus koo xam ni def na trois fois assemblée nationale def na deux mandats de de de de, de maire nekk DG ba pare nekk docteur en pharmacie ba pare nekk nag am une légitimité politique. parce que moi je me dis di gagner base. ah déggoo li ma la wax dama ni la non seulement. dafay gagné base am te loolu mooy légitimité politique bi may wax mais aussi am loo xam ni mooy décret maanaam la confiance du président de la république mu am ko trois fois am ko aussi en tant que DG du ma benn xaar ma yàlla ak mimeek ak keneen ak keneen mois je me dis que ni je suis une militante engagée boo xam ni je suis aux côtés du président de la république depuis la création de la l'APR kii neex na ma kii neexuma doxuma ci yooyu j'ai pas aw ma kenn koo xam ni foofu laay jaar aw ma ndijaay aw ma dara Je n'ai qu'un seul leader, un seul responsable, un mentor, il s'appelle le président ma Sall. Maintenant, s'il me di mam, man proposé wu ma Mimi Touré ma Amadou Mame Diop laa laa choisir ma Amadou Mame Diop laay voter man personnellement c'est mon engagement personnel qui n'a rien à nag avec les autres députés et je sais que bu ma ci am benn yeneen 82 députés yi am nañ wala yeneen quatre-vingt-un députés am nañ engagement bu ko raw envers le président euh, de la république Macky Sall dafa retirer euh, promesse yi nga xam ne def na ko si euh, defoon na ko Mimi Touré. xaw ma ndegam defoon na promesse. non non non yëguma promesse. parce que Mimi Touré gañewul mais bu ñu xoolee aussi.